ni ma mais président est ce que xam nga li nga def Guédiawaye ma ne la waxuma ci dara ko ñu ne ma demoon ko xool ma demoon donc daa la ñaanal waaye nag xam parti laa yor de man ni kii dama ko. waaye nag comme parti bi déggal nañu ma. waaw te itam nit ku baax nga ku bëgg sa réew. te am nga capacité. ma ne danaa plaider pour ñu def le maire bu Guédiawaye. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf. yàlla loolu danañu fexe ba mu am. danaa la defal Guédiawaye loo xam ne doo fa fenn. xam nga Guédiawaye. dama fa def. dëgg man maa ko moderniser. nit ñi ñëw. ni ma mais président est-ce que xam nga li nga def géej yaay ma ne waaw ma ci ko ma demoon ko xool donc daa la ñaanal waaye nag xam nga de man maa xëy xëy ni kii dama ko. waaye nag comme comme parti bi déggal nañu ma. waaw te itam nit ku baax nga ku bëgg sa te am nga capacité. ah ma ne danaa plaider pour ñu def le maire bu Guédiawaye. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf. yàlla baax nañu gagné rek. waaw incha allah toujours maire yëpp ñu faral. incha allah jërëjëf. waaw bu fekkente ni loolu danañu fexe ba mu am. danaa la defal Guédiawaye loo xam ne doo am fenn. xam nga Guédiawaye. dama fa def. man maa ko moderniser. dafa tali. nit ñi ñëw. ñu ma mais président est ce que xam nga li nga def géej gi ma ne waaw ma jël gisuma ko ñu ne ma demoon ko xool ma demoon defal plan donc daa la ñaanal waaye nag xam nga parti laa yor de man maa xëy xëy ni kii dama ko. waaye nag comme comme parti bi déggal nañu ma. waaw te itam nit ku baax nga ku bëgg sa réew. te am nga capacité. ah ma ne danaa plaider pour ñu def le maire bu ci suuf lu maire ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international.